li ñu fi indi tey defe naa ni wax naa ko mm, li ñu fi indi mooy dañu ñëw ci njiitalu xalifa Ababacar Sall ak ñi mu àndal pour ziar si nemmeeku waxtaan ak suñu bàyyi suñu kilifa nekkoon fi njiitu réew muy maître Abdoulaye Wade waxtaan wi nag lenn rek la woon mooy delloo njikkal sargal ko ñaanal ko sàkku ci moom ay ñaan ndax li wolof di wax naan mag mat naa bàyyi ci réew ñaanu mag ndaw da koy soxla te wax dëgg yàlla tey bi ñu fi ñëwaatee Abdoulaye Wade wan nañu bàyyoon nañu ñu nit wan nañu ko ni ko doomoon nañu la waxtaan wu sell la waxtaan wu yiw la waxtaan wu dal la waxtaan wu jàmm la lii sabab bi mooy li mu doon ci réew mi waaye wax naa léegi ni démb am na tiis bu daloon ci njabootu Khalifa Sall malgré atam ak ay itteem mu bàyyi lépp ñëw jaale si te jullit lépp lu luñ ko defal ci teraanga day jàpp di ko delloo teraangu ju mu toll loolu moo taxoon ñu ñëw ni ko loolu nga defoon ci suñu famille yëg nañ ko sant nañ la ci sargal nañ la yàlla mi am pay yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla bàyyi la ci réew mi mbébét ak yéene bi nga am ci réew mi yëpp yàlla na ko suñu borom matal